maa ngi waxee nag ci turu association des commerçants de Touba mooy kuréel bi nga xam ne moo ëmb mboolem commerçant yi nga xam ne ñoo nekk Touba di fi yaxantu euh, lii nag ab déclaration la boo xam ne ñu ngi koy jël ginnaaw bi nga xamee ne fële ca euh, douane bu Sénégal jël nañ décision bu euh, tarif douanier yi nga xam ne. moo fi nekkoon wala ñu koy wax ay valeurs de correction mu fas yéene ko appliquer ci yenn produit yoo xam ne commerçant yi ñu ngi koy dugal ci Sénégal euh, ginnaaw ba nga xamee nag commerçant yi loolu gis nañ ne ñoom ànduñu ci ci lam xaatim kayit gi pour wane seen ñàkk d'accord ci décision boobu nga xam ne euh, directeur général des douanes jël na ko te waxtaanu ci ak commerçant yi parce que décision bu mel nii bu fekkee ne danga ngaa yor responsabilité bu mel noonu ci am réew ñu jox la lu toll ne douane nga séq kook ay gor ay nawle ñuy say naataango nekk ci réew mi li ngeen séq walla nga cee jël benn décision da nga war a waxtaane ak ñoom waaye jël décision unilatéralement et sans aucune concertation loolu lu commerçant yi di ñaawlu la ñu gis ne nag décision boobu nekkul décision bu populaire décision bu impopulaire la ndax commerçant yi moom d'accorduñ ci mbooleem ñi nga xam ne dañuy liggéey di importer ay produits di ko dugal ci réew mi d'accorduñ ci mais même au sein de la douane d'accorduñ ci aussi agent transitaire yi d'accorduñ ci ci biir port mën naa ne bëri na ñuy liggéeyee biir port décision boobu gis nañ ne d'accorduñ ci parce que nekkul décision bu applicable donc décision la boo xam ne décision bu impopulaire la décision bi tamit da gis ne bokk na ci conséquences yi muy jël mooy day affaiblir secteur privé national ñi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi di liggéey ci réew mi jël seen alal investir ko ci réew mi ñooñu lay affaiblir te ñooñu affaiblir leen mooy affaiblir économie sénégalaise ndax amut benn réew ci àdduna boo xam ne mën ngaa euh, développé yu jëm sa kanam te Sénégal dafa bëgg a nekk seen réew moo xam ne dañ naan Sénégal émergent bala ngaa dem ci développement da ngay jaar ci émergence donc émergence sax bala nga faa mën a jaar faaw nga am secteur privé nationale bu fort boo xam ne mooy téye sa économie kon genre décision yi nga xam ne lu défavorable la ci secteur privé national bi loolu dangay gis ne baaxul ci économie sénégalaise tey day favoriser entreprise étrangère yi daleen di favoriser parce que ñoom dañuy bénéficier wu ay exonération de taxes yoo xam ne état bi da koy da koy defal aussi secteur privé bi ñoom duñu am loolu ay duñu am ay exonération parce que secteur informel bi euh, d'ailleurs duñu am exonération yooyu parce que c'est informel donc ñu gis nekkoon kon décision bi day affaiblir secteur national privé bi rawatina informel bi di favoriser euh, euh, entreprise étrangère yi nga xam ne ñoo nekk ci ñoo nekk ci réew mi ñu gis na nag décision bi bu ñu ko xoolee ba ci biir dañuy gis ne dara ci lu jëm ci bëgg sa réew amu ci waaye tamit dara ci lu jëm ci loo xam ne da gis ne li ko taw mooy économie bi gën a dëgër gën a foor gën a dem ca kanam nekku ci ndax bu fekkee ne day day diwaan bi mën na mën na cee yokk ay recette ci benn wàll da ngay gis ne ci beneen wàll gi day affaiblir secteur privé national bi parce que au final le consommateur moom mooy ressentir Euh, li nga xam ne am na mooy bu ñu bu ñu yokkee prix parce que commerçant bi moom bu fekkee ne dañoo yokk taxe yi moom da koy yokkaat ci produit bi donc au final consommateur final bi moom consommateur bi moom moo koy ressentir te ñun commerçant yi ñu ñooy consommateurs yi donc ñun dañuy taxaw position consommateur la ñuy waxee mais taxawuñu en tant que businessman boo xam ne li muy xool ñu gis ne décision bi bokk na ci yooyu yi muy jur euh, ñun nag li nga xam ne fas yéene nañ ko def mooy yëpp bépp démarche bu nécessaire légale ci yoon fas yéene nañ koo jël ngir décision bi nga xam ne jël nañ ko au niveau de la direction des douanes ñu jël ci ñu ko xoolaat ko dellu ci ginnaaw bu fekkee ne nag mboolem démarche euh, yi légal li nga xam ne war nañ koo def def nañ ko te amul benn suite favorable danañ suspendre mboolem activité yi nga xam ne commerçant yi ñu ngi koy defal ak port autonome de Dakar jusqu'au nouvel ordre ba keroog mbir mi di réglé xam nga bu nekkee ci réew moo xam ne état de droit la lépp looy def da war a jaar ci voies yu yi moo tax ci voies yu légales jaar mooy dinañ saisir dinañ dem dinañ fexe ba gisanteeg ministre tutelle ministre bi nga xam ne moo ñu boot ak mboolem autorité yi nga xam ne ñoo boot commerçant yi moo xam ministre des finances des finances et de l'économie la moo xam ministre du commerce la danañ ñoom pour décision bi ñu dellu ci loo ne c'est applicable yi mën naa ne doublé wuñ euh, pourcentage bi dañ ci teg wala mën naa ne dañ ko triplé dañ ko triplé loolu da ngay gis ne comme ni ma ko waxoon léegi commerçant bi moom du perte commerçant bi bu ñu yokkee produit moom day yokk day yokk produit bi donc au final consommateur consommateur final bi consommateur bi moom moo koy ressentir te ñun commerçant yi ñun ñooy ñun ñooy consommateurs yi ndax ñun ñooy yor ay njaboot di génne dépense ñuy wëlbatiku di jëndaat yenn yenn yi kon li ñuy jaay kon dañuy taxaw position sénégalais lambda bi nga xam ne moo war a jënd produit yi ñuy jaay ñun moo war a jënd produit yi ñuy jaay